monsieur Fofana du ñàkk ni démb suivre nga discours Adji Sarr bi ñu bëggoon xam ban jàngat nga ci def en tant que spécialiste communication. waaw xam nga il faut balaa ñoo wax discours Adji Sarr wax lan la Adji Sarr mooy koo xam ne dafa jël ay tuuma teg ko ci son ko ni da ko doon siif mu jur plainte boo xam ne dem na section recherche ak lu si xew yëpp ak événement yu si xew yëpp ci biir loolu mu am ñu doon ne ana Adji Sarr ana Adji Sarr déggoon nañ fi lu bari ñu ko wax ko ñii nee lañ Adji Sarr dañ ko rawale génne ko dëkk bi ñii nee nañ dem na Gambie ñii nee nañ dem nañ Portugal ñii nee nañ ak yu ni mel yu ni mel donc ndekete Adji Sarr mu ngi woon Sénégal donc mu dem ba mu yàgg waa ana Adji Sarr ana Adji Sarr ana Adji Sarr kon nag bu demee ba moom tey jii nii mu génn au moins du point de vue de l'équilibre de l'information dañuy gis ni que ñu daan tuumal wax na kakay tuumal génn na wax loolu mooy premier jàngat boo ciy njëkk a def donc deuxième jàngat bi moo di nii da ngay gis ni tamit moom aji Sarr elle a donné sa part de vérité nu ñu koy waxee elle a dit moom lu xew maintenant est-ce que nous sommes habilités à dire ndax la mu wax dëgg la walla du dëgg loolu du suñu cër ndaxte bu leen fàtte ni plainte la képp ku am sañ-sañ wax ndax dëgg la walla du dëgg kenn la rek mooy juge bu war a àtte mbir mi comme nag eggaguñu ci jugement fu mu toll nii wax ak opinion bi moo fi ne. donc beneen bi Ousmane Sonko bañ ko tuumalee génn def ay déclaration kon nag tey jii ni Adji Sarr moom tam dafa génn def ay def déclaration am loolu mooy loo xam ne li nii de façon globale loolu lañ mën a jàpp si wax ci mhm. d'accord alors en tant que spécialiste en communication ndax jàpp nga ni ci discours Adji Sarr bi ndax am na yenn incohérence ñëpp ñu bëri commentaires yi bëri na am na ñoo xamante ne ñoo ngi ñëw ci langage gestuel bi langage corporel bi nu mu toogee Adji Sarr boo ko gisee buy wax dafay sëgg mel ni comme si que dafay liir ku nekk daal ak jàngat bu mu ci def mais yow en tant yow mi nga xamante ne sax xam-xam dafa màcc ci wàllum communication nan nga ko gisee. waaw xam nga euh, événement yu mel nii ou déclaration yu mel nii il faut le reconnaître c'est des opérations de communication loolu bu ko kenn weddi benn ñaareel bi opération de communication boo ko déggee nga war a mën a am nga war a mën a gis ni y a un de préparation balaa muy ñëw. ñetteel bi c'est une opération de coopéra de communication di nga gis au moins mu nga tegal ko benn fil conducteur donc lii nga war a wax lii moo ci war a topp lii moo ci war a topp yéen seen télé yi bu ngeen def journal da ngeen di am conducteur conducteur bi mooy tax ngeen mën a xam boo jógee ci élément bi ci élément bi nga jëm donc ci fii nii tamit mën nga jàpp loolu te loolu aussi du dulu du lu graaw lu normal la Ousmane Sonko boo ko gisee muy def déclaration am donte le mu ngi doon wax amoon na fay bu mu téye woon. parce que loolu mooy lu normal man bu fekkente ne man maay sa conseiller en communication bu ma lay wax loo dama naan lii ngay njëkkee lii ngay njëkkee lii ngay njëkkee dama la koy bindal donc loolu du problème bi c'est-à-dire que maintenant après da ngay jël Adji Sarr xale bu am ñaar fukki at ci lu ñu wax euh, xale boo xam ne xëy na à part démb kenn mosu ko gis ñu tàllal ko micro wala ñu tàllal ko euh, caméra muy loolu mu doon xale boo xam ne kenn mosu ko géeg mu wax ci mbooloo boo ko bëggee ñëw tegal ko ñetti caméra wala ñeenti caméra parce que démb bu leen fàtte ni y avait TFM même si waa TFM nompa pas diffusé ils étaient i rajo xaw ma i télé ak leeral nga tegal ko ñetti caméra jàkkaarloo ko ak ay journalistes yoo xam ne mosu leen gis forcément di nga gis ni si discours am elle n'était pas à l'aise loolu kam da nga ko koy nangul parce que comme on dit c'est l'excuse du débutant bokkul ak ki nga xam ni tàmm na toog ci palateau di wax ak média donc forcément di nga gis ci discours bi am na ay moment yoo xam ne day am lu décousu day am loo xam ne du topp benn linéarité bu mu waroon am mais au fond au fond de façon globale la mu bëggoon wax sénégalais yi man bu ma ko doon tënk dam koy tënk ci ñaar ba ñett benn dañ doon wax ni waxu complot la moom mu ñëw mu ne lii du complot raconter histoire bi fu mu dem ñaar tuumaal nañ ko ni dafa giseek président de la république taxaw na waat na ni moom mosu kaa gis ñett ndax seq naak Ousmane Sonko wala sequl taxaw na wax lu mu ci xalaat donc pour man ñett yooyu moo taxoon mbir mi jóg ñeenteel bi mooy lu ma la wax tout à ci au début de des propos moo di ni dañ doon naan dafa daw dañ ko làq dëkk bi dañ ko génne dëkk bi mu wane ni elle est bien au Sénégal d'accord alors yow bu ma la déggee jàppoo ni que ay failles am na ci communication bi mu def démb. si am na y a des loolu laa lay wax c'est-à-dire que dama lay expliquer lan moo indi fay yi ku mës wax ci télé ku mës wax devant une caméra ku mës wax ak ay journalistes koo xam ne mosul def déclaration publique boo ko jëlee nee ko kaay wax forcément di nga gis loo xam ne lii ay failles la loolu am na ci dans la forme comme dans le fond am na yoo xam ne yii nii. gis naa ni ay failles la mais dama jàpp ni du sama rôle man ma naan lii la wala la mais de façon globale effectivement sa communication am na si yoo xam ne war nañ ko sotaat man bu ma xoolee boo xool damay jàpp ni la première faille boo xam ne mën naa ko gis te jàpp ko xalaat ko moo di ni aji Sarr n'a pas été préparé à cet exercice alors que yu mel nii nit ki dañ ko war a waajal. peut-être amul benn préparation bi surtout psychologiquement mais yow mi nga xamante ne dañu tàmm di wax ne wax. nu de non non wax bu werulee nopp yi koy dégg mën a weer yow bi nga xamante ne sa xam-xam màcc na ci wàllum communication est-ce que jàpp nga ne Adji Sarr lu mu wax yenn na maanaam démb boo dégluwee discours am bien vrai que nee nga waru juger xam nga moi je reviens à ça c'est pas à moi de wér na wala wérul man je suis pas celui-là parce que du may àtte moom dafa amoon lu moo moo tax may la c'est ça part de vérité moom lu mu wax da ko doon wax sénégalais yi di ko dégg nag ñun ñëpp lañ nous sommes des millions de sénégalais ku nekk am na lu mu ci dégg ku nekk am na lu mu ci war a jàpp ku nekk am na lu mu ko war a gisee mais lu am ba am moo di ni relation am na ndax c'est une relation consentie ou non loolu justice moo koy leeral waaye moom itamit expliqué na ci yenn explication yi da ngay gis ni am na benn linéarité ci beneen côté bi da ngay gis ni dafa xaw a def nii mais lu mu si mënti am moom Adji Sarr moom wax na lii moo doon wax leeral na lu mu waroon leeral sénégalais yi nañ ko déglu mais après bu leen fàtte ni c'est un dossier judiciaire c'est pas ce que les sénégalais retiennent qui est important mais c'est ce que la justice dira. alors par rapport ak euh, langage corporel am geste yu doon def nu mu toogee buy wax du bëgg a figgi sax xool caméra yi da ngay gis ne dafay dafay sëgg rek du bëgg a xool nit ñi yow loolu noo gisee. c'est comme si c'est une femme qui se sentait coupable loolu la doon wane ci ci loolu noonu quoi day wax di sëgg. donc day wax c'est comme si c'est une femme qui avait des remords maintenant pourquoi elle a des remords parce que lu ko dal la wala parce que lu mu doon wax la wala parce que conséquence actam la xaw ma mais l'essentiel da ngay gis loolu c'est une femme qui était dans une dans un système d'autoprotection boo seetloo mu ngi jël loxo yi di ko teg ci kawam boo seetloo mu ngi wax di sëgg boo seetloo mu ngi wax elle fait pas face à la caméra donc yooyu noonu yëpp c'est des signes qui montrent kii nii elle n'était pas à l'aise quand elle parlait maintenant pourquoi elle n'était pas à l'aise xëy na c'était la première fois muy ñëw jàkkaarloo caméra moo tax xëy na aussi parce que elle des choses à se reprocher xëy na elle avait de la pudeur à raconter ce qu'elle était en de raconter parce que démb quand même moi j'ai eu mal waaw démb man am naa lu mu métti parce que ñu ngi wax relation entre góor ak jigéen ci loo xam ne lii nii je j'aurais pas aimé l'entendre man mii j'avais mal moi-même à l'entendre kon xëy na moom mii di ko wax tamit xëy na loolu métti woon na ko xëy na bugg ci woon egg mais qu'elle était obligée mu egg ci pour que nit ñi xam lu mu bëgg a wax xëy na aussi mais lu mu ci mënti doon son langage corporel de façon globale seen ne dégageait pas la sérénité loolu moom mën nañ ko wax. alors gis nañ ne depuis président de la république ba mu génnee ba tey coow li mën nañ nekk fayoon na ndax jàppoo ne Adji Sarr lim lim génn nii wax ndax jàppoo ne dina indiwaat yeneen problème ci dëkk bi. mën na ko indi mën na ko bañ a indi parce que da ngay xool ci benn côté ñu bëri dañoo jàppoon ni dañoo war a jël dossier bi teg ko ci suuf am na ñu doon wax loolu am na ñu doon naan mbir yi yëpp nañ ko jël teg ko ci suuf te mbir yëpp bu ñu ko naree jël teg ko ci suuf mooy plainte Adji Sarr ñu ci jàpp ñëpp après ñoom ñëpp nañ jël lépp bàyyi gas suul parce que jarul coow mais bu boobaa ñu doon wax loolu te doon défendre loolu man damay jàng da sama jàngat day mel ni maître El Hadj Diouf ou avocat Adji yi xam nañ ni procès du am ñu ne kaay ñu wax li fa xew lépp benn yoon sénégalais ku nekk xam li ngay xam man noonu laa koy jàngatee ci benn côté damay jàpp ni ñoom c' est comme on dit c' est nañu nañu wax lépp mu jeex buñ demee procès xayrun buñ demul procès au moins xamal nañ sénégalais yi lu fa xew man noonu laa gisee mbir mi mais maintenant ndax mën na yëkkatiwaat coow franchement je ne le pense pas jàpp naa ni fu ñu toll nii ñu ngi si dynamique boo xam ne nit ñi. lu dalal réew mi lañ gën a soxla ko lu yëkkati ay ci réew mi. fekkente ne avocat yi dañu war a dem procès fii ak dossier bi muy dem de instruction ba jeex ñàkkul ni il vont tirer les leçons de sa première sortie publique bu boobaa nga xam ne da ngay ñëw jàkkaarloog tey jii nii on parle pas moins de huit xaw ma dix avocats yuy défendre Ousmane Sonko mu doon huit à dix avocats yoo xam ne da ngay jàkkaarloo ak ñoom te ñoo xam ne ñii nii c'est pas de petits avocats c'est de grands avocats dans ce pays. parce que ku mel nii sama xarit Bamba Cissé il est très bon ku mel ni maître Ciré door lii ak ñeneen ak ñeneen ñu ma tuddul donc boo waree jàkkaarloo ak ñooñu mais lu wóor ba wóor bu fekkente ne procès dina am xamal ni ñii nga xam ne tey jii ñoo euh, nekk avocat Adji Sarr dinañ ko waajal bu war mën tax mu mën a jàkkaarloo ak ñooñu parce que bu fekkente ne nag moom procès dina am mais bu fekkente ne procès du am tamit ñoom lu ñu bëggoon am nañ ko mooy xamal sénégalais yi lan moo fa xewoon.